والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sant góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yépp mbooleem képp ku teew fii ci plateau bi ak képp koo xam ne yéene woon ngaa teew te mënoo ko ngir xat-xat yi nga xam ni moo am dara waralul teewaayu reen bii nag lu dul jongante yaatal mbindum alxuraan mi nga xam ni C3S daana ko def lu mat ñetti at a ngi nii nañu di ko def bu reen bi nag dafa dëppook mbas mi nga xam ne yàlla indi na ko fi ñi ngi ñaan sunu boroom jële ko fi yàlla na ko fi jële yàlla na ko fi jële waaye nag taxawaay bi nag daanu ci sant njiitul réew mi ak waa kër docteur ndax seeni taxawaay kat am na ci solo jogante bi nag ay yitte moo ci am yoo takku yoo xam ni ay nit a ko ci def muy mbooloo yu baree bari yooyu nag ay commission yu takku la njiit yi la yit nag mooy sëriñ Xaadim Njaay imaam ak sëriñ Moustapha Diop Ndar ak soxna maam Awa Dem mi ñëpp xam ak sëriñ Ousmane Dia ca baatam moom itam taxawaayam ràññu ko ci lool ñooñu nag ñi leen ci doon jàppale mooy waa kër gi c 3 ci njiital sëriñ Fallou Seck ak ñim ko àndal édition ren bii di troisième bi nag dañ koo tudde waa jaamal Cissé ngir seen taxawaay ci alxuraan kenn réeréwu ko ci miim réew ñu dara ko nag sëriñ alxaaji mbàkke jaxate mi nga xam ni moom itam taxawaayam ci alxuraan ak ci xam-xam ñëpp ràññee nañ ko ci Touba loolu daal mooy li nga xam ne mooy jataay bi bu ñu sañoon nag mu mën na am ni mu daa amee waaye ren tënk-tënk yi moo tax ba kenn mënul du koo teewe kon bu déwénee ak jàmm yàlla nañ ko fa mën a teewe teeween wa it gën wu reen wi waaye li ci am solo rek sant nañ ñépp ñi ko doon taxawe ak ñi yéene woon ak gone yii nga xam ne ñoom itam lenn li ay gone la sax leen li ay mag ñoo doon def jongante bi ñi ngi leen di ñaanal di sàkku ñoom itam nu ñaan ndax kat ñu jàmbaare lañ bala nga ko war a xam rek nga bi nga bëgg a bind juróomi laaye yoo xam ni gisoo ko waxumaa nag robe joo xam ni nañ leen ko joxe kenn fàgguwu ko seen taxawaay rafetlu nañ ko lool yàlla na saa borom def leen ñuy mag te yàlla na saa borom nangul leen te yàlla na borom defal leen jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa أنت بنعمة ربك بمجنون